Euh, dañu nek ci coalition jam ak njëriñ mais fan yi yeb ñuy deglu di suivre caravane candidat yi mais seku national seku national nga xamanteni wax rek lay def muy tedd liste bi nga xamanteni mom lañu jox gouvernement Sénégal mu nekk suñu premier ministre pendant sept mois Sénégal puusul paasul dafa taxaw taga témbi ragala a jàkkaarloo ak député yi fi nekkoon pour mu def déclaration de politique générale am mu daw yaakaar ne bu élection yi jàllee dafa war a am majorité pour mën a dem di jàllale lettre bi ci poste bi mu yomb duñu ko may gaa yaa ngi ne Mimi man ma tegal leen ci seku renommée national parce que day wax rek wax rek la fi nekkee jox nañ la chef de gouvernement munoo dem léegi ñëw nga la nga wàcc woon nga ne moom ngay wannaat parce que moo fi taxawoon nag 2022 mu ne état pouvoir soxlawul assemblée nationale assemblée nationale opposition moko wara yoré pour deuk bu mën dox wa pourquoi 2022 ak légui muy ñaari at tey jii yàlla def wëlbati bu carte gi tourner ñu ñi mënul won te télé. Té ñu tabax Sénégal tabax yoon yi tabax Dakar Arena tabax lip, bàyyi fi avion présidentiel ñooñu ñoo télé won ba bàyyi fi lool lepp mom tay mu yor nguur gi mu ne nañu ko jox assemblée nationale lolu luma jaaxal lay doon parce que assemblée nationale député ya fo wara war ne warul nek député yi nga xamanteni way monsieur le premier ministre way wala way monsieur le président wala wi nangam dang fo wara nek nek dignement député du peuple ma am luma ma dégg barki dem mu wax ko Thiès mu tudde be tudde Paul daga xol aéroports, aéroport de port mu nekk le plan Sénégal émergent muy PSE bi nga xamante Amadou Ba programme ñoom ñu am lu indi parce que ñun ñu ngi 2035. horizon sommes nous indi 2050. projet bi nga xamante ni la Amadou Ba tëggoon ñu doon ko rek ci soppe soppeeku bu si amee rek la am mu ne pôle dagga xolpa dañu neewoon demba daganut ñom ñi di campagne tay ci biir commune bu jass ñom ñoo neewoon yagul dara si mois de janvier bi passé février avant élection présidentielle ñom ñoo neewoon président Diomaye ak sonku bu ñu jëlé dëkk bi dinañu jël pôle bi de suuf si wat ko population Safène nous ñoko ko nañu dem faar tay buñu taxawé ñu ne sommes national wax ñom Nous nañ ci parce que vision la euh, programme bu baax la mais vision bobu Macky Sall fi Amadou Ba programme bobu Macky ak Amadou Ba fi kon nañu wax nit ñi mais nak bu dé parti da nga jël réew jël ko ci ay fenn ak katch ak bu ñu demee ba jox la ko dëkk boobu mënoo dox si ay kàcc ki fenn parce que dëkk programme moo ko yore projet yorul dëkk da ngay def say projet nga ñëw def sa programme bu lay yóbbu si cinq ans yi yóbbu la si dix ans yi yóbbu la si vingt ans yi indi waxoon nañ ne lu mat quatre mille cadres yoo xamante ni ay boromi xam-xam lañu Sénégal ñu ngi bind benn téere téere bi bi ñu ko génnewee si quatre mille yooyu 20 pages le kon 4 mille nous ku nekk une phrase nga si joxe Nous wax nit ñi dëgg Nous wax nit ñi dëgg ñu xamal Sénégal nous dañu fait si nous avons buñ Et yokkalee jox leen assemblée nationale Nous Nous si goute bi ñan Nous mën Sénégal Nous avons gi mu nga liste yi fi Nous muy ñi nga Nous liste nationaux yi si eh, département ñoo ñu ñoo mën a dem jàkkaarloo ak gouvernement bi fi ne si njekk ak trang indi ay projet de loi luy jëmale Sénégal kanam lépp lu ñu indi lu baax si dëkk bi ñu ànd si lépp lu si àndul ñu discuter ko parce que bu ñu bàyyee cuune yii ak suñu dëkk bi fa ñu ko jëlee sept mois ñu dugal ko si kàmb fépp di metti kenn liggéeyatul ñu bàyyi leen fii ak cinq ans ñu yor assemblée nationale yor pouvoir bi dëkk bi ñëppay màgget parce que munoo ñëw si dëkk nga catu sa dëkk yow mi nga xamante ni yow lañu ne liggéeyal dëkk bi nga jiite gouvernement bi nga ñëw ne Sénégal pays en ruine la lan nga ñuy indil la nga commencé woon depuis fukki at 94 milliards 50 30 millions milliards 1000 milliards la mujjee barki démb ñun bëgguñu koo xamante ni dañ lay jox suñu dëkk ba pare. ngay melni journaliste journaliste mooy joxe xibar mom moy dem taataan ko indi ko jox population bi kañu fal dañ la né demal nga xol pexe yi nga xamanteni ding ko jël nga liggéey dëkk bi pour dëkk bi suqaliku mais bu fekke yow ci fake news rek nga né parce que réseaux sociaux mo la fal ci réseaux sociaux yi ngay né taw bir primature fi nga xamanteni suñu alal mo fa né dajale ay ministre di né opposition bi ñemewuñu lacrymogène seku national di Mimi moom mooy wax loolu nit ki nag bu dee ne da jóg ci fen ak fitna moom nga bëggee yore Sénégal sénégalais yi nañu am full ak fayda xam ne gars yi amul lenn lu ñu fi indi Paul Daga-Xolpa bii ni gars yi waxee woon ni caisse noir dafa xaraam tey ñu daganal ko Paul Daga-Xolpa bi ñu neewoon projet bu bon la ci biir Saafeen tey moom la ñu bëgg a daganal utal ko benen couleur buñu ko sang ñu né non projet bi bu la yi nangam nangam dama Paul pôle dagg xolp bi li ay doomu Safen si sa Safen nek fi ay millionnaire ay millionnaire la wax état Sénégal defu ko si biir bi parce que gaay yaa fi fi ay millionnaire si biir pôle bi wala si biir fenen ñen ñu yor ay double ci le pôle bi pour dédommagement am ñu dédommager leen ñu jël def ko poste comme nous ko nous si haute bi fi traversé woon fu mu jaar ñu dem profito l'alpha ben lotissement ñu fay ñu jël bobu def sen poste pour askan bi pour sen Nous la tey li li araamoon ñun coalition ak commune ma ànd ko kor yi nga xamante ni fëq yóbbuwu leen te duñu mos a transhumé parce que seen njiit moom moo ne ku nekk fenn ba vingt 24 mars na fa continuer yàlla def man Abdourahmane fa ma nekkoon ba le 24 mars dama fa fas yéene continuer parce que yoruma loo xamante ni damay daw di làqu ji pour état bi fi nekk aar ma walla mu yiir ma ñi fi nekk nag tey transhumance bi comme tulleeg Mali Macky Sall bi mu fi nekk balaa gars di transhumer am na deux ans ci pouvoir bi Ablaye Wade bi mu fi nekk balaa gars di transhumer am na deux ans ci pouvoir bi mais ñi sept mois la ñu am nga dégg maa ngi woon Macky jox na ma tranga Amadou Ba joxoon na ma tranga waaye tey ji maa ngi daw fekki làqatu ci ginnaaw gars yi ñun duñu làqatu fenn te suñu mbooloo mii ñu gis nii man ak El Hadj Ndiaye ak ñoom Modou ñi ma àndal nii ak ñom Mamadou Pouy ñom Ibrahima Pouy dinañu taxaw jamar lo gaay ci commune bi ñun bëré bëreewuñu mbapet mbapat arène nationale lañuy bëré ak ñom dañoo bokk ci parti am couleur duñu daw duñu daay luñu am ci commune bi dinañ ko jël mais candidat yi ki wax na ci Omar Sy umpawul ken PDS ba léegi nga ñëw ci euh Ousmane Gueye pareil depuis Malicounda bi muy nek président conseil rural bi ni mu démé maire mu dëkk maire Sali Lewis Coco képp kuy AFP fi si ci jas euh, ba fam koy jëmale xam nga kuy Lewis Koko waa parti socialiste xam nañu que moy neexu man dama né député Ben affaire rek nga mëna a bu weer déwé nga jot sa salaire waaye député defarul yoon député député déful nangam. député dangay ngay aay si ay projet de loi député da ngay nekk biir assemblée nationale bu gars yi waxee naka su dul noonu te baaxul si askan bi nga taxaw ne lii baaxul si askan bi nga défendre ko waaye li ma jot a gisagum waa ji wax Cees ne nangam pôle nangam pôle nangam pôle nangam programme boobu loolu mooy programme ki nga xamante ni moom mooy député ne ànd naa ci kooku kon bu ñu demee assemblée nationale la gars yi wax rek la ñuy jàllale may ne nag waa jas liste bu baax baa ngi nii waa département Mbour mooy list bi nga xamante ni moom la Amadou baa jiite nga xamante ni moom moo jàngal gaa yi fi ne ñi fi ne moom moo leen formé yor lépp ci biir Sénégal yor mën a doxal Sénégal suba suba kooku moo nekk ci tëdd liste bi mu ànd ak guy gii nga xamante ni parce que gaa yi keroog ba ñu defee seen lépp dañu daal di mandargal ci guy moo tax ñun ñu indi guy gu mel nii. may ñaan ñëpp muy jas ak département bi ak niveau national nañu voté liste Amadou Ba le set ñu jël ay député yu am xam-xam député yoo xamante ni ay cadre lañu ñu nekk assemblée nationale mën a jàkkaarloo gouvernement bi nga xamante ni moom la seku renommé national di Mimi moom la jiite nga xamante ni wax rek ak saaga ak dóore génnee jaasi parce que gis nañu li xew Koungheul benn nit boo xamante ni nekk ci kanamu convoi yor jaasi ba si yàgg dugal jaasi bi génne pistolet di daw ak moom te ba léegi kenn woowu ko attaqué euh, siège u ñoom xalifa Sall ba ñu gis ña fa nekk kenn waxu leen dara nit taxaw ne suba xëy la nekk jaasi génnee leen gànnaay ñu def loolu loolu moo fi ne waaye ñi nga xamante ni comme ñoom buggaan ñu koy masawu jógoon di yóbbul dund askan bi nga xamante ni moo loru ci daande maayo bële ñu ne ko doo fi jàllee ba teye ko kaso